والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين سيد ولد آدم أجمعين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين مبكي جلدي yi ñu ngi leen di nuyu di leen di ci sen émission jaar yonent yi alayhi salaam andi nañu yonent yàlla adama teg ci idris nuh huud tay nak ñuy def muraji'a ki nga xamé ne mom yonent yàlla salih alayhi salaam mom yonent yàlla salih mi nak histoire andi luñu fan la gane adina exactement waaye fan la génnee àddina it exactement andi luñu ko li wér daal mooy moom mu ngi gane àddina ci madinatul xijri nga xame ne ci arabi saoudite ci la bokk ci xijaaz nga xame ne moom ak al mamlikatul arabiya saoudiya mu ngi ko féetewoo ci au nord nga xame ne bërëb la boo xamee ne mu ngi nekk ci diggante xijaaz ak fi nga xamee ne moom mooy it tabuk yonent bi sallallahu bi muy dem tabuk romb na fa ak saxaaba yi mu ne fii bu kenn naan ci ndox mi bu fi kenn def euh, dara ñoo ñooy asxaabul xijri moom boo demee ba tey jii nii may wax ak yow boo demee noonu lañ leen tuddee muy asxaabul xijri euh, boo xamee madinatul ola mu ngi ko féete au sud ouest euh, fa la ko féete ci distance su vingt kilomètres ci lay daal di tolloog moom ba tey gars yi diyaaru samut dañ leen ni woowee wala asxaabul xijri ba fi may waxee yow nii noonu lañ leen ni mm, tuddee wa ala kulli xaalin mbokk yi damaa bëgg wax rek ne yonente yàlla saalix mii su ma lay wax askanam damay wax nii mooy saalix ibnu ubayd ibnu asif ibnu maasix ibnu ubayd ibnu xaadir ibnu samuda ibnu jaasir ibnu iram ibnu saam ibnu noox nii la ko histoire andee wala am ñu ne moom mooy saalix ibnu ubayd ibnu asif ibnu maasix ibnu ubayd ibnu xaazir wala saalix ba tey wala ibnu jaabir ibnu samut ibnu jaasir ibnu iram ibnu saam ibnu noox ñaari riwaay yëpp daldi nañ koy eh, andi waaye mbokk yi moom suñ borom subhaanahu wa taala mu ngi ko yónni ci ay mbokkam te ñooñu ñoom ñooy xawmu samuda ñoom nag ay nit lañu woon yoo xamee ni yàlla daf leen joxoon wërsëg wu rëy waaye ñuy jàmmu xërëm topp seen bànneexu bakkan ku mën sa morom duma ñoom daal ci mooy yàlla ci loolu rek lañ daal nekkoon suñ borom subhaanahu wa nag daldi di nag yónni ki nga xamee ne moom mooy yónnent yàlla saalix muy mbokk ci ñoom pour mu daal di leen waar وخلين نجامو سنبرم سبحانه وتعالى وأي نوم فالي وينكو نيو توب سين خرمي رك بوكو نتي سين خرمي نجوم جامو ودا جدا هدا شمس مناف اك لاتا ني الأستاذ دكتور جوات علي ني لكو وخيكي تاريخ العرب قبل الإسلام وعلى كل حال mbokk yi ñoom nekk nañ ci loolu rek di ko jaamu nekk ci di weddi yàlla di ko bokkaale yonent yàlla saalix suñ borom subhanahu wa taala ne ko waxal gaa ñi nag nañ ma jaamu moom lay wax naan wa ila thamuda axaahum saalixan xaala yaa qawmi ubudullah ma lakum min ilahin gayruhu huwa anshaakum min al ardi wastaamarakum fiha fastaghfiruhu suma tuubu ilayhi inna rabbi qaribun mujibun yonente yàlla saalix mu ngi leen wax naan yéen sama famille yéen sëti samuda yi yéen samay mbokk mu ne jaamu leen yàlla ngeen wetal ko xam ne waruñoo jaamu kudul moom daal mooy ki nga xamee ne moom moo ñu euh, sos moo ñu bind euh, moo bind bind suuf si ñu ci dox di ci def lu ñu neex kon nag na bàyyi jaamu xërëm yi ak mën sa morom duma na ngeen wéetal yàlla te tuub jëm ci moom yàlla day boo ko ñaanee nga tuub jëm ci moom di nga fekk ne ku mën a jéggale la waaye ku jege la te kuy dégg la gars yi nag mu mel ni dafa dañoo am surprise ñu ne ko yow saalix ñu ndey sag mbaax gi ñu wan sag teey gi ñu wan sa bëgg lu baax gi ñu wan sa doo faral kuy tooñ gi ñu wan taxoon na ba ñun ñépp ñu àndoon yaakaar na yow ab sang ngay nekk ci suñu biir waaye sa wax ji daal tax na ñun ñépp nee nañ la càmm sa wax ji nga wax naan nañ jaamu yàlla wéetal ko te bàyyi nag li suñu bàyyi ak suñu maam yi doom jaamu lii daal tax nañu ñun ñëpp am nañ siki sàkk ci li ngay woote loolu la di wax naan qaalu yaa saalixu xad kunta fiina marjuwan qabla haza atanhaana an nacbuda maa yacbudu aabaauna wa innana la fi shakkin mimma tadcuunana ilayhi murib loolu boo demee mooy aaya numéro 61 Eh, ci suratu Huud uh, suratu Huud mooy surat numéro 11 kon gis nga eh, en général boo wootee say mbokk wax leen li ëpp yëpp dañ lay daal di weddi eh, waaye gis nga yonent yàlla saalix découragé wul ma laan neen yéen samay mbokk yéen waa samuuda mu ne sant leen yàlla te jaamu ko yàlla mi nga xamee ni bërki démboo njaay rek gis ngeen xaw ma àddin ni mu leen daal di def bi ñu weddee yàlla may leen doole may leen kàttan ngeen di jël montagne yi di ci defar nu leen neexee di ci tabax ay pale di ci def lépp lu mu leen neex yàlla mi leen may kàttan boobu jaamu leen suñu borom subhanahu wa ngeen bañ a dox nag ci suuf si di yàq gaa yi nga xamee ni ñoom la ñuy tuddee borom barke ca xawmu euh, samuda ñoo ngi wax nag gaa yi benn benn yi topp nag yonent yàlla euh, saalix ña ngi naan yéen loo leen xam ci seen waa ji ñu ne ñun kay li mu wax dëgg la moo tax gëm nañ ko ñu ne ko yéen ak li ngeen gëm ñun moom dañ koo weddi yéen li ngeen gëm ñun weddi nañ ko ndax yéen ñëpp nekkoo leen ci dëgg loolu ngay dégg suñu boroom subhanahu wa taala di ko wax naan wazkuru إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعصوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه خالوا إنا بما أرسل به مؤمنون خال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون لولو بوديميكي سورة الأعراف موموي آية نمرو 76 أعراف موي سورة نمرو 7 واي مبوكي باتاي يونتي على صالح كم يونتي يبرك duñ ma sa découragé dañuy continuer di woote mu ngi naan leen yéen xeetu samouda yéen samay mbokk mu ne waay waay ragal leen yàlla man de yàlla moo ma yónni te nag eh, koo xamee ne ku ñu wóolu laa fa suñ borom subhanahu wa moo tax ma andi leen mission bi ragal leen yàlla te topp ma man de laajuma leen benn dërëm laajuma leen hadiya waxuma tabaxal leen ma kër waxuma jaamu leen ma waxuma leen dama ne na ngeen ànd ñun ñëpp ñu jaamu yàlla mi nga xamee ne mooy borom asamaan ak suuf ak lu nekk ci biiram ak lu nekk ci seen diggante bàyyi leen jaamu xërëm yàlla moo leen wërsëgal ay tool jox leen ay sewnde yàlla moo leen wërsëgal jox leen ay meññente yàlla moo leen wërsëgal may leen doole ak xel ngeen yett nag montagne yi di ci def ay kër yoo xamee ne kër yu mucc ayib la kon ragaleen yàlla ngeen topp ma bañ a topp nag mbirim ñi nga xamee ne ñoom ay yàqkat lañ ñi nga xamee ne ñoom ci kaw suuf yàq rek lañ fi nekkee te du duñu yéwénal mukk gaay ñu ngi naan ko yow nag dañoo jàpp ne yow ci njabarkat yi nga bokk mais yow yow nit nga comme ñun bu fekkee li ngay wax daal dëgg la andil aw kaaw téef bu dee li ngay wax dëgg la da ngay def miracle ñu xam ne yow li ngay wax dëgg la waaye taxaw rek naan yàlla moo ma yónni loolu ñun munuñ koo gëm yow daal ab njabarkat nga yonte ah saalih ma ngay continuer di len di war ma ngay continuer di len di delloo fa suñu borom subhanahu wa taala ñu ne ko nak legi nak wax ji fay dal di fin ben yoon gis nga liñ bëgg dal moy su fekke li ngay wax deug la yow dal fexel ba gennel ñu ab gélem bo xamé ni dang koy genné ci montagne bi montagne bi dal jakarlo ak ñun dang koy def mu jur ab gélem gélem go xamé nak du niroo ak suñu gëléem yii nii gëléem goo xamee ne dafay njool ca kaw ba sut suñu gëléem yi waaye gëléem goo xamee ne du làpp dafay suur gëléem daal lañ soxla waaye du niroog suñu gërëm yi loolu daal boo ko defee ñu xam ne li ngay wax dëgg la soo ko deful ñu xam ne daal yow ci kàccikat yi nga bokk kenn yónniwu la gis nga loolu yëpp li taxoon ñu wax ko mooy dañoo bëggoon mu bàyyi leen ñu continuer jaamu seen xër mi solna la leen ñu ne nañ ko wax lo xamé ni lii mom du ko mën ndax gélem moy jur gélem waye montagne bu jur gélem lolu musta am ñu japp ni lolu mom mënu ko wala mënu ko ñaan boromam ba may ko ko ñu ne ko na def lolu yonte yalla salih ma ngay ñaan nak suñu borom subhanahu wa taala di ko ñaan di ko ñaan ngir mu genné gélem ci bir montagne bi bam yag suñu borom nako yow saalix ñun nangul nañ li ngay ñaan ñoom ñépp nag nañ xool montagne bi gars yi xool montagne bi rek gis montagne bi daal di nag génnee nag ab gëlëm gëlëm goo xamee ne ñoom niñ ko bëggee woon waxee ko woon ko yonent yàlla saalix gëlëm gi noonu la daal di mel ña nga xame ne yàlla dimbali woon na leen ñoom ñépp ñu daal di koy gëm nag daal di koy topp xam ne lii kawteef la te kenn mënu ko kuddul suñ borom subhanahu wa taala waaye borom barke ya ak borom daraja ya comme d'habitude rek duñ mës a nangu ñoom ñëpp ñu continuer nag di weddi li nga xamee ne mooy yonente yàlla saalix naan lii njabar la rek lii xam nga ne du dëgg yonente yàlla saalix nag mbokk yi ma ngi leen wax naan lii nag euh, gélamuk suñ borom la subhanahu wa taala bu leen ko metital bu leen ko def dara nag loo leen bëgg nag ci soow dina leen ko àndil waaye ak condition que teen bi nag dañ koy bàyyee benn fan boo xamee ne moom moo koy naan li ca nekk lépp ci ëllëg sa moom mu noppalu yéen ngeen wëgg nag teen bi def ci lu leen neex gars yi def ko benn fan ñaari fan ñu ne daal lii du wëy xaaral nag yonent yàlla saalix mi daal daf ñuy fontoo lim bëgg mënta sotti ku ñu wax nak kenn ku jigen ko xamé ne mom la wax suduq bintul Mahya ibn Zuhair ibn al Mukhtar mom ki nga xamé ne moko dencion di borom kërëmam mom dafa tup daal di dugg nak ci l'islam daal di gëm yonent yàlla salih loolu nak xaw ko métti lool nak mu dem nak ci benn doomi xam ko xamee masda ibnu mahraj ibnu mahya non la daldi tuddu mu dem garal ko bopam ne ko man dal gelem gi ni dang koy daldi loj mbirum salih daldi jeex su boba nak man joxna la sama bop lool moy condition bi euh, mu daldi nak dem gis wa dekk bi ñu waxtaan ñu ut juróom ñett fukki góor 80 hommes mom lañu wut ñu daldi koy dimbali nak jàppale ko ñu daal di loj gëlëm gi bañ ko lojee ñu daldi di euh, jël gëlëm gi tasaare ko nag ci dëkk bi fu nekk ñu dugal fa ndawal gaa yi daal di lekk te nag bàyyi xel ne yonent yàlla saali waxoon na leen qaala haadihi naaqatun laha shirbun walakum shirbu yawmin maalum wala tamassuha bi suu fa yaaxuzukum azabu yawmin azim loolu suratu shuara yi aya 155 156 Shuara yi mooy surat numéro 26 euh, kon nag gis nga euh, ñoom daal fexe nañu ba ndaw si moom moo leen ci dugal ñoom ñëpp ñu daal di nag loj lan nga xamee moom mooy gélém ga histoire mu ñuy nettali ne bisu ba euh, ci lañ daal di loj gélém ga rey ko séddale ndawal la ba pare nag yamuñ ca ña ngay dem nag ci yonente yàlla saalix di ko ñaawal naan ko ñun laj nañ jéelam gi tasaare nañ ndawal li ñu ngi ciy noos bu dee li nga doon wax dëgg la nag waxal sa borom subhanahu wa taala nañu jox mbugal mi loolu ngay dégg buur di wax naan fa aqaru naaqata wa ataw an amri rabbihim wa qaalu yaa saalixu itina bi ma taiduna in kunta min al mursalin loolu mu ngi ci suratul araf muy surat numéro 7 euh, aay bi moom mooy numéro 77 euh, ma ne léegi nag euh, ñuy daal di yeewu bisu alxames seen kanam yépp nag daal di jaune nag ñu nekkee noonu ca bëccëg ba yépp daal di sonn xamuñ lu soppi seen kanam yi ñu yeewu bisu ajjuma seen kanam yi daal di changé waat couleur rouge ñu yeewu nag bisu samedi seen kanam yépp nag daal di ñuul kukk nag ñu toog nag mbugal mi daal di commencé ñoom ñëpp ñu daal di euh, jaaxle waaye yamuñu ci jaaxle commencé nañoo nag rëccu parce que xam nañ ne li xew nii ci mbugal la daal di jëm loolu nag boo demee ci suratu Shuara yi ci ay numéro 157 da ngay fekk suñ borom subhanahu wa taala mu ngi ko fay wax naan fa aqaruha fa asbahu naadimina loj nañ ko waaye mujj nañ ñoom ñëpp ñu dal di koy rëccu waye yent yàlla salih mu ngi wax naan tamattau fi darikum salaasata ayamin zalika wa'dun ghayru makzubin wax na leen ne tok len ci seen keri rek ñetti fan mbugal bi insha allah dina ñëw te suñu borom subhanahu wa taala dogal nako ba pare mom du wax jo xamé ne wax ju muy delu ginaaw la taman li ma wax deug la te di ngeen ko gis loolu moy ñu tok toog alxemes ajjuma samedi rek mbugal ma daal di commencé suñ borom subhaanahu wa taala daal di musal nag yonente yàlla saalix ak benn benn yi nga xame ni ñoom ñoo ko daal di gëmoon malaaka ma daal di ñëw daal di yuuxu nag jibril daldi leen di xaacu ñoom ñëpp ñu daal di wow koŋ nag ci seen biir néeg yi wow fa koŋ daal dee loolu ba tey ba demee ci suratu Huud da ngay fekk suñ borom subhanahu wa taala mu ngi netali suratu Hud moy surat numéro 11 falamma jaa amruna najjaynaa saalihan walazina amanu maahu bi rahmatin minna wa min khizi yawma idhin inna rabbaka huwa alqawiyu aziz wa akhadha alazina zalamu sayhata fa asbahu fi dari diyarihim jaathimina gis nga kon noonu la leen suñ borom subhaanahu wa taala daal di alagee waaye boo demee ci sootu shuara yi buur mu ngi ko fay nettali ba tey mu ngi naan fa axadahum alazaabu inna fi zalika la aayatan wa ma kaana gis nga noonu de leen mbugalee ndax ñu bëri ci ñoom gis nga gëmuñu woon yàlla toppuñu woon yonent yàlla saalix lu ne def loon nañ ko ko waaye gis nga ginnaaw ñetti fan daal naa leen di mbugal waaye ba tey di nga ko fekk ci suratu namli buur di wax naan gis nga euh, nit kuy def lu bon moom ci lu bon rek lay daal di mujj fanzur kayfa kaana aqibatu makrihim anna damarnaahum wa qawmahum ajmain fa tilka buyutuhum xaawiya bima zalamu inna fi dalika la aayatan li qawmin yaalamuuna waaye mbokk yi boo demee ci sootu fusilat itam buur mu ngi ko fay nettali nga xaacu malaaka ba moo daal di ñëw ci ñoom ñoom ñëpp ñu daal di eh, dee eh, daal di eh, wow koŋ nag mbokk yi nag xisatu yonent yàlla saalix di nga ko fekk ci juróom ñeenti saar ci alquran suratul araf yi muy surat numéro 7 suratu huut muy surat numéro 11 suratu shuara yi muy surat numéro 26 suratu namli muy surat vingt 27 suratu fusilat yi muy surat numéro 41 zariyat yi 51 suratul xamar yi 68 suratul xaqa muy surat numéro 69 ak suratu chamshi yi muy surat numéro 91 mbokk yi yàlla na yàlla def si ñun dégg ak topp def ko ci yéen yàlla nañu yàlla woon dëgg bañ xam ne mooy dëgg ñu daal di koy topp mu wan ñu ay caaxaan bañ xam ne li caaxaan la ñu woon ko ginnaaw wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu